alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV Lutte TV ak Bambey TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam ngeen nag ni ngeen ko ne bu ngeen gisee toogaay bu jekk bii moo macha allah ngeen xam na xale bawal bi petit bu bawal bu ngoy Aliou Sylla bu Bambey wala sax bu Sénégal ah parce que tey li muy def defe naa Sénégalais yëpp a ngi ci gis seen bopp rawatina ñu bëgg làmb moo woote nag fa nga xam ne mooy ca Bambey bu ñu korité ba mu am ñaari fan. Talla Ndiaye yaag Lamine jàpp leen loolu korité ba am ñaari fan la ak ñi ñuy seetaan ca la làmb jay amee ca ba mu war fa tëgg nag ay combat yu neexan neexan war mooy bëre grand combat bi ak kan ak booy ba Bambey séréer waaw Bambey séréer xam naa ko ndax marché lundi ba waaye beneen combat bu jay top mooy ban ban ba tey Lamine fàttali ma yaa may dimbali spécial ba xeeru ngor numéro 2 mu yoof ak Karbala loolu mooy deux mooy combat spécial ba am na yeneen combat ne tamit ñu dañ ne ku lim doo juum waaye doo da nga matal boog maanaam doo juum mais doo matal noonu la fay demee drapeau yi nag drapeau yi loo xam ne nii drapeau ay nit yu mag a mag la tuddee drapeau yi yaakaar naa meeru Bambey am na fa drapeau muy Gana mbay ak ki nga xam ne nii moo deeti kan Lamine Serigne Saliou mbay borom jinne yi moom Serigne Saliou Mbacké ci États-Unis ñu koy nuyu di ko ziar sëñ bi Mbaye waaw kenn du yow ñu ngi lay dékkaat loxo yi nga gën ñoo ñaanal soxla nañ ko lool bu baax a baax Bilal Fall tamit am na fa moom it ba tey rek loolu mooy yokk rek ak kanaat desaat na ba tey Modou Pouy moom tamit ñu koy ziar am na fa drapeau ak Cheikh Gadiaga mel na ma ma ñu xam Cheikh Gadiaga tamit am na fa drapeau waaw moom mooy meeru dingiraay ñu nuy waa dingiraay yëpp mu mel ni ki kon petit daal dafa jóg ngir delloo njukkal ay nitam nit ki nag koo xamul nam la def noo koy def boog nam la defa tax looloo tax petit def lii kon daal li ñuy def mooy mbër yi nga xam ne nii ñoo fi nekk ñu njëkk a woote koo may njëkk Adidas ana nga Adidas mu ne tekk wala daa ñëwul ana yaroo baax waaw yaroo baax dégg nga yaru de baax na xale yu jigéen tamit ñu ngi leen di nuyu jigéen yi petit toog nii seen yére jekk na macha allah yaroo baax maa ngi lay bëgg di la ziar. maa lay dellu Adidas la bokk. yaroo baax nga wala Doudou Baka Sarr la. ah yaroo baax waaye ngay bëreeg Adidas ñëwul fii tey. Adidas waa ñëwul fii mais bu bés ba dina ñëw. loo koy yóbbante ci lu gàtt. li ma ko yóbbante mooy dama koy daan incha allah bu neexee yàlla. fu lewu na di. waaw naa ko daan moom mbëri toog fii yëpp bu jour ba maa si gën a neex combat barki Serigne Touba. billaahi. yaa wax lii. dinaa ko daan si déel bu gaaw. maa ngi leen di béggee di leen ziar. di leen nuyu di leen dalal te xam ne. man ngeen fekk si daal. Uh-huh. maa ngi rafetlu jeetaay bi tamit. di sant petit production bu baax a baax. Mm-hmm. parce que lii colorel daal la. parce que man mën naa ne petite production bu ma tuddee dara drapeau mën nañ ne def na ko fu dara nekkut parce que instant bi mën nañ ne dara nekkagu fi parce que man ak moom xëy na ba ñuy ànd démb la tey soog a ñëw. ak ak palmaanam la xaw ma cuub bëgg naa la. maa ngi lay dellu ziar. tur bi nan laati. Fatmata Sall. Fatmata da ngay siggi xool caméra be <laughs> waaw ginnaaw bi ñu yàlla julli si bi. seen digganteeg Modou suñu diggante moo Modou Pouye xanaa diggante dëkkin bu baax dañoo nekk fii ñun ñëpp ay étudiant lañ ah, waaw fii lañ nekk nag si kër gi moom mooy responsable bi mais dafa nekk koo xamante nit ku baax ku yaru moo tax tey bu nekkee tey dara drapeau mu am tey bis bu mel nii dañoo war a taxaw rafetal bis bi daal mm-hmm. waaw suñu diggante daal dafa ratax mel ni comme bu rek soof mel ko pullo xanaa ah pullo pullo waaw tey Lamine ñooñ buñ doon bëre <laughs> kuy njëkk a wax bébé maa ngi lay bëgge maa ngi bu baax. naka yëngu yi. sant bu baax kay. sa adversaire da ngi nii taxaw rëg-rëg. mu ngi nii. loo koy wax. li ma koy wax du bari. dangay ngay yëkkati nag dangay wax gars yi dañoo bëgg a dégg. loolu dëgg la. li ma koy mën a expliquer mooy leen jarul muy indi ay mbokam sax ndax combat bi maa ko moom. jarul muy indi ay. ay mbokam jarul muy ànd ak ay mbokam. foo teg loolu. loolu fi ma ko dee xam naa ko bu baax. da nga koo dàq wala da ko ëpp doole wala da koy daan. maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole te dama koy daan xale bu ndaw la. yaa wax lii. waaw maa ko wax. foo dëkk yow. man fii sa laa ba nekk nga ne. Cheikh Mbaba. mas ngaa bëri arène. non non Mbapat laay bëri. kon jël ngay drapeau. waaw fii naanu na waaw. Hmm. waaw. ci bébé xarañ nee daal kii bu mu andi mbokkam rëg-rëg bébé xarañ dégg nga li ma ne say mbokk bu ñu ñëw bu kenn ñëw ndax da daan dong. loo waaw waaw loolu de du jig petit puusil ni léegi loo koy tontu. bisimilah bisimilah sant yàlla julli si yeneen bi maa ngi sant sama ñaari waajur kii li ma ko wax bariwul kii ma sama dëkk la may fekk man Bambey laa dëkk on près Bambey dem balaa bu yéexee rek stade bi dama koy miite maa ko doxa bëree benn maa ko doole. yaa wax lii li ma la wax nii mu am. yoo xam rek ku koy woote lan moo tax ñu woote bëree baa tax. waaye Modou ku koy woote. waa xoolal rek man dama yaay man kay du xool yaay xool. waaw ah, mbapat laa la wax nii de. Ah, da bëri mbapat. micro baa ngi nii wax leen gars yi dégg leen mbapat man dama mbapat laa la wax nii bool dafa mun naa ko compter. da xeer xeer maa ngi lay ziar. delloo la ziar. xeer ci loone ne. sant yàlla gërëm yonent bi. nga war a bëri ji Bambey ak sa adversaire bi nu tuddati sax Karbala. waaw làmb la rek. maanaam ñun bëri la ñuy tarbiyu te làmb lañu yaakaar amaana maanaam bëgg a bëre ak yaakaar làmb moo tax ñu bëgg a jóge fii dem ba Bambey di bëri ji amaana su suñu opté woon leneen duñ jël ay combat yi dem di bëri ji ba Bambey te Petit dafa nekk suñu doomu nday nekk suñu xarit nekk suñu lépp bu ñu soxlaa woon ba maatam dañuy dem bëri ji loolu la bëri rek moo ñu ñor moo tax ñu jël combat bi. Euh, Karbala mi mën nga koo daan. kii ñu ma mën a daan kii moo si gën a ndaw. kon moom day bokk ci ñi ngay lim. barke alxuraanu karim ñoo mën a daan kii moo si gën a ndaw. ndax day bokk ci ñi ngay daan. kii daan naa ko ba pare. ñaar bi suuf léegul. kii daanu na moo la ko gën a xam. mu ko xamee. laaj ko xam na ka. waaw loolu day leer na na daanu nga ba pare te dara xewagut Karbala. salaamaaleykum maa ngi sant yala bu baax a baax. julli ci sama ñaari waajur. waaw kii li ma koy wax bariwul. kii moo xam nga ne moom gën a xam ne mënu maa daan billaay mënu maa daan. lu tax lu tax mënu laa daan. damaa xam ne mënu maa daan rek dama koo dàq bëre bilaay. foo teg ne yaa ko dàq man maa ko dàq bëre foofu hmm. su ngeen mbapatee kon. mbapatee ma daan ko du yàgg. su amee dóor. ma daan ko. yaa ngi ci batterie bi. drapeau bi ngeen di gis nag mooy spécialu komba bi mooy spécialu grand combat bi. drapeau Cheikh Gadiaga la meeru Dingaraay kii moo ko fi représenté soxna si maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. tur bi. Khady ñu tudde drapeau Cheikh Gadiaga nga ñëw représenté ko fi looy wax ñaari mbër yi koy bëri ak ñi nga xam ne ñoo war a ñëw Bambey buñ ko rete bam ñaari fan. Mm, di leen wax ne Cheikh Gadiaga dafa am compte mbégte ak tamit di gërëm petite production bi nga xamante ne tamit moom moo jël euh, journée bu mag bi nga xam ne moo nekk Korité ba am de jours ca Bambey tuddee ko ko kontaan def mbégte amul naru woon naroon na ñëw sax mais xam nga programme bi ak nu mu demee ak mairie du chaque jour la ñuy déplacé wu et loolu moo tax ñëwul mais dafa naroon ñëw assister mbër yi euh, di leen wax tamit ne kontaan na daal kontaan na. te yéen ñi bëree tamit drapeau Cheikh Gadiaga tamit du yomb de. ku daan loo ciy am. non du yomb. Hmm. Cheikh Gadiaga mu nga leen di pare lu rëy ca di ngi raay dina. Lamine war a dox ci diggante booy Bawol numéro 2 du noonu la ah Boy Bawol bu Bambey ak ku muy bëreel moom Bébé Daaru. ana wala bala waaye mais balaa ñuy woo sax mu mbër yi dañuy woo promoteur bi petit ñu koy nuyu encore une fois di nuyu ay doomu ndayam gis woon la léegi looy wax sa digganteek ak petit ci lu gàtt ak looy wax waa Ngoy pour bés ba waaw petit moom wax dëgg seela dafa nekk sama rakk bu son si man moo tax man tamit li ma lépp lu ma def si moom rek bor la boo xam dama koy fay ndax damaa nekk mbër di bëree ñoom ñu nekk samay rakk di son si man ma jaral leen lu nekk moom xam na man xam naa ñuy son ngir man moo tax lépp lu ñu xew la rek man lu mu mën doon dama siy taxaw waa di woon champion booy Bawol bëgg nañ la. waaw maa ngi lay fay Babacar. Mhm. ak waa Lit TV waa Leewtoo TV. ak Bambey TV TV yëpp maa ngi lay nit ziar bu baax a baax. Mhm. di wax na nag petit sama doomu nday la. Mhm. su ma xewlee moom laa njëkk a gis. ak sama doomu nday bi Mara Kane. xam moo tax bu xew xewlee man damay teel a ñëw. xam nga jàpp si affaire yi comme ni mu ñuy jàppalee. aduna noo amul solo. am naa combat mais. teew dama nekk ci préparation mais loolu dara mhm. Assane Ndiaye dina ma ko <laughs> dina comprendre ndax kii sama doomu ndey la waa di santaan ñëpp daal di wax ne sama combat bi na waa Bawol yépp ñëw jàpp si mhm. comprendre mhm. di woo ñëpp daal ñu ñëw jàpp si sa xam ne am naa bés boo Karim bu baax di sant ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp waa Lutte TV waa Leewtoo TV ndax yéen aw seen fay tamit lépp yéen la yéen a si jàpp bu ma egsi fu ma egsi bu ma xamee grâce à yéen la xam nga maa ngi di sant bu baax di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew di sant waa gaale bi tey ñun ma daal bay seen yitte yëpp ndax koor gi ak métit bi coono yi xam baax a baax baax ñoom ñëpp di sant mbër yi wax mbër yi ñu xam naa xëy na ñoom danoo tardé affaire yooyu noonu quoi waaw ñëpp daal Bakar di joxe rendez-vous pour waaw rendez-vous man kay rendez-vous damay woo ñëpp ñi ñi xam ñoo tudd bés muy Serigne Salim Mbaye borom jinne yi xam nga mhm. c'est mon ami mon sama waay la sama xarit la wax dëgg fa yàlla bés bii nii dafa doon loo xam ne rek bés bu ñu commencé la mais dina dem ci yeneen bés xam nga di ci woowaat Bilal Fall moom am na drapeau di ko ci woo baax a baax ñoom ñëpp nga xam ne seen lamb la Cheikh meeru Dingiraay comme noonu xam nga monsieur nga xam sama grand sama xarit la muy meeru baax quoi nga xam sama tur sax petit production yaa ngi koy dégg rek maa la woo ci bi am di woo waa Ngoy Aliou sama dëkk waa Bambey waa commerçant yi waa Petersen maa woo ñëpp xam boobu ma kenn di woo waa Medina waa Parcelles maa woo aduna daal na ñëpp ñëw ci bés bi ndax bés bi mooy bés bi nga xam ne moom dama gën a ñor sama bés yi di sant ñi fi teew ku ma ñu booy bool dëgal bu ngoy maa ngi nga xam ñoom fi teew ndax waaw champion wax gars yi naan billet yi par na 1000 la ñaar téeméer def ma ci ay 2000 def ma 3 billet 1000 francs la na tur mi dana du ndogo moom daa waaw mbër nag xanaa boo taxawee nii dina metti de Ah, waa lii lan la concentré wu nii rek yow yaa ngi woor. waa kay maam Cheikh Fall lañu. parce que Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñuy nuyu xalifa ba encore une fois bu mu yàgg fi te dëggool bu ngoy walla boog booy bool bu ngoy. booy bool bu Bambey. bu Bambey du moyes lépp benn la xam naa ne Bambey nga dëkk. Mm-hmm. waaw ki nga war a bëreel mooy Karbala. non mooy bébé daaru. bébé di moyes maa ngi jégalu de gars yi koor gala rek bébé daaru nga war a bëreel ñëwul fii tey. aouzu a mina saytaani rajim bu ñu julee si yoon bi sant yàlla bu baax a baax san sant suñu ñaari waajo bu baax a baax di santaat sama papa bu baax a baax di sant sama gaay ma sama baay faal yi di sant sama mag sama doom bay seex ak xaadim ak bay zal maa leen di sant ñëpp avant tout d'abord nga may ma ma sant sama mbokku séeréer yi yeeno fogo nuno fogole seere nu ngiray simna nuno ku ref na nu gonum fo simangolum temps ko wax dara dama koy ñaanal rek bu nekkee ne leneen moo ko téye yàlla may ko tal ak mën-mën ak doole bu juu combat ba mu ñëw mu ñëw mat daan ko waaw xanaa di ñaan naa rek ñu commencé ko ci bisimilah yeggale ko ci alhamdulilah ah yàlla jàppale ñu lépp loo nga xamante ne yaakaar nañ ko ci rek muy réussite ñu am ko ci yàlla jàppale ñu tamit suñu mbër yi neexal suñu combat yi surtout suñu drapeau góor gi nga xamante ne dañoo fas yéene rek dem rek nekk ci ginnaawam <laughs> ndax moo ñu ko ji di félicité petit tamit <laughs> di ko ñaanal yàlla di ko wax bonne continuation ak mbër tamit